la fekk ñuy wax mobile dem na du dellu si waat non vraiment defuma woon dara nag te bu nu ñëwee daa war a mel ni suppu jaan mbaa mu mel ni daxin dë suppu jaan nu muy mel dangar ju bari ku ko ku ci naan di jaddi jaddi mais dama dégg ñu ne da ngay pare pour delluwaat est-ce que loolu dëgg la ah waaw xëy na mun na nekk. da ngay delluwaat pour entraîner ji wala da ngay dellu pour joobi wala da dellu pour dem def MMA. naa ni làmb ji booy lim cinq yi dàq bëre Sénégal da si boole Balla Gaye donc su Balla Gaye taxawee tey di wax si mobile kay. bi may wax ak promoteur bi combat la ñu waxante woon sama diggante man ak Ramdaan la woon. Ama ak a bëre. Balla Gaye ak Modou Lo fii lañ tolloon bëre différence bii ñu am Ama ak Modou Lo différence bii la Balla Gaye amoon ak Modou Lo. mun naa ko jox Baye Mandione mu sàkkatoo ko. Baye Mandione men waaw waaw. Baye Mandione man sax boobu ma joxee moo saaga doo a waxumala ak moom. baal li ngay wax baal li nga wax Baye Mandione men gëm sa bopp du ñebe. waaw xam nga lool sax. <laughs> waaw loolu dessin la rek parce que nit xoolee ci am seen waratuñ kii benn mu muy man chaque jour li may wax rek ma ñëw ci làmb.